si ñun ñun li ñu xalaat ne ñun li ñu xam ne moom mooy actualité sénégalaise mooy euh, suñu frère patriote yi nga xam ne ñoom la ñu jàpp euh, defe naa bu ñu juumul euh, y quelque quelques semaines de cela Souleymane Ndéné moom moo joxoon ma Macky ordre bi mu ne ko dafa war a mate sénégalais yi daf leen war a mate maanaam il doit les mater maanaam daf leen war a tere wax daf leen war a mate ba nga xam ne bu ñu génnee di wax daf leen war a noot maanaam noppiloo leen par force euh, loolu yëpp nag bi mu jàllee euh, aar euh, ñun ñëpp ñoo lànk suñu maanaam li nga xam ne mooy collectifu ñoo lànk ñoo bañ ñu génn vraiment ñuy continuer rek di def li nga xam ne loolu moo intéressé sénégalais yi Euh, ba tey euh, Maty il a euh, encore enfermé les patriotes hier démb la Donc, nous donc ñuy ñaawluwaat li nga xam ne moom notre nootu doomu jàmbur yooyu ci doomu jàmbur association parti politique <coughs> ngeen jéggal ma tuuti Euh, li ñu ne sniful dimanche bi comme duñu génn lu bari dañuy xaw a am tuuti lu ñu euh, sëqat voilà donc ñu <coughs> ay mouvement citoyen ay doomu sénégalais yu génn pour ñaxtu gars yi jéggal tuuti voilà ay doomu sénégalais yu génn pour ñaxtu euh, donc di partager ay flyer di waxtaan ak doomu sénégalais yi euh, donc euh, Macky ñoom la jàpp démb euh, te comme li ma koy waxee rek Sénégal yàlla moo ñu ko boole ñun ñëpp kenn ñaanul kenn laajul pour yàlla wàccee la Sénégal c'est Dieu qui décidé ne kenn ku nekk ci ñun fa ngay bokk donc euh, du coup ñun ñëpp ñoo bokk euh, benn réew bi mu neex ñu mu et on doit se respecter donc euh, Macky Sall li mu bëgg doxal ci biir Sénégal malheureusement pour lui le Sénégal n'est pas un royaume le Sénégal c'est une république boo xam ne ay doomu aadama ñooy tànn ki nga xam ne moo leen di jiitu dañ koy def nag ci forme élection Euh, boo àndeek ngor vraiment di nga gis ay résultat boo àndeek gore di aussi di nga sàcc xam nga sàcc moom daanaka moo gën a yomb ci li yàlla si yàlla sàkk mooy jël loo xam ne moomoo ko loolu c'est pas du ngóora loolu du lu du lu jafe loolu du lu compliqué c'est pourquoi boo leen ñëwee ci dëkk yu mel ni Amérique <clears throat> ngeen gis mu avancé xam nga tubaab quatre-vingt-dix pour cent des blancs ne volent pas du ñu sàcc Nous, dañu gëm dem ñàkk Nous sax ku leen may boo fekkee tubaab bu wér peng amul problème nga jël sa alal nga merci beaucoup parce que nañ war dem nga sa doole nga jël li nga mais comme ñun euh, on a des défaillants chez nous ay défaillants lañ fa yor ay yoruñu gor donc euh, Euh, donc comme ñun yoruñu ay gor ci suñu dëkk ce qu'ils disent euh, mooy dañuy ne nañu sàcc benn te bu ñu sàccee képp ku ko wax nañ ko dóor xam nga loolu tu as déjà violé deux lois de ñaari loi wu ngor nga violé maanaam gor déjà du sàcc ba nga sàccee ba pare nga ne beneen gor bu ko wax aussi di nga ko dóor tegal ko ci parce que tout simplement tu es euh, vraiment dans une vie sombre Macky dafa que ci es bu lëndëm euh, parce que ndaysan euh boko xolé nit ku damay toutal doole ji ba pare taxaw di len retane di kokoli euh, donc tu as un problème tu as un problème que tes conseillers ne t'ont pas bien conseillé tu n'as pas des conseillers qui sont assez intelligents ou assez cohérents pour te conseiller mais nous, nous lay avertir encore une fois nous les patriotes sénégalais partout dans le monde on va t'avertir encore une fois pour te dire que tu vas payer tous ces coûts que tu as tous ces manipulations que tu es en train de poser sur la tête des Sénégalais tu vas les payer et tu vas les payer avec un prix très cher Les anglais wax he who laughs last laughs the best Nous, ñi ñun la suñu reetaan di neex parce que keroog bu ñu tegee Macky Sall loxo ak njabootam yaakaar naa ne yéen les mêmes personnes dans ces réseaux là vous allez sortir encore et vous allez essayer de pleurer pour lui et vous allez essayer d'avoir pitié de lui et vous allez essayer de demander aux gens de le libérer et de le faire ceci non nous on va le faire dignement duñ ko jël ñu teg ko loo xam ne yoon tegu ko ko Macky Sall dañ koy jël atte ko ci yoon punir ko ci yoon ba nga xam ne Bobou la bagnal sénégalais ce qu'il a refusé pour nous on va le lui permettre ñun dinañ ko may Macky Sall ñun dinañ ko japp. dinañ ko yobbu ci yoon taaj ko ci yoon atté ko ci yoon et ça sera une histoire dina nek ben lay don ci histoire du Sénégal dina am nak inshallah comme nous leen ko waxé. nous allons perdre 99 fois mais nous aurons une seule victoire et cette victoire sera euh, la victoire euh, mon moy don victoire bi gën neex ci histoire du Sénégal parce que dara gënul neex nga japp ki nga xamné mom mo toroxal sa askan nga koy atte dara gënul neex nga japp sàcc bi gëna mag ci sa askan nga koy atte sa askan fekke ko dara gënul neex nga japp ki don mate comme maté la ko sa askan nga tek ko di ko atte askan bi yëpp dara gënul neex nga jàpp ki doon jaay doole néew ji doole ji nga koy atte mu gis boppam eh dara gënu koo neex am nga exemple makki comme ni mu koy waxee moom ci boppam ce seulement un exemple des dictateurs des dictateurs avant lui euh, le Sénégal n'est pas le premier pays à avoir des dictateurs comme ni may la civilisation Afrique la Le dictateur gis nañ ko depuis ci temps pharaon Égypte on l'a vu et on a trouvé toujours que le peuple a eu raison vraiment peuple toujours mom moy am deug ci kaw dictateur té ñun comme ni ma leen koy waxé bo leen démé ngeen sétani live fait sax ak tiaxani yu bari di ngeen comprendre Sénégal Euh, comme ni ma leen koy waxee toujours c'est deux ñaari groupe la mooy ñi nga xam ne dañoo dëggu bëgguñu ko néewal nit doole bëgguñu ko saaga nit bëgguñu ko tooñ nit ak ña nga xam ne ay sàcc lañu ci alalu sàcc la ñuy dund ca la ñu yaroo ca la ñu màggee euh, nga xam ne tey boo seetee c'est honteux mais da ngay dugg sax yenn saay ci réseau sociaux yi léegi dama ko bàyyi lu bari da ngay dugg sax ci yenn situation yow ci sa bopp boo duggee rek di nga comprendre ne nga ne àdduna euh, moo doy waar adduna euh, dafa doy waar bu ma nee àdduna dafa doy waar euh, ay doomu aadama ñu bokk benn dëkk euh, dëkk bi ñun ñëpp ñoo ci am njariñ ñun ñëpp on a des intérêts dans au Sénégal ñun ñëpp dañ fa am ay waajur am fa ay famille ay membres de famille ñun ñëpp nag ñu am quelques doom ci Sénégal yoo xam ne dañoo génn pour xeexal Sénégal. Tu as vu comme Samuel Do. exactement. Samuel Doe au Liberia. Voilà, voilà, mon frère, Samuel Doe au Libéria. Et, c'est le cas que moi, je, vraiment, je préférerais pour Maki. C'est le cas de Samuel Doe. Parce que amna yo adama humiliation parce que c'est quelqu'un qui est en train de mater 16 millions de personnes comme il l'a dit kooku humiliation la qui il doit mourir une mort d'humiliation dañ ko war en public que tous les Sénégalais le voient parce que nit ko xam amul ben respect ci démocratie nit ko xam amul ben respect ci euh, euh, euh, euh tolérance nit ko xam amul le respect ci société bo xam yalla moko fi tek te yalla moko may freedom donc euh, yaakaar naa ne nit kooku du nit koo xam ne vraiment sénégalais yi war nañoo mën négocier ak moom gars yi maa ngi leen di ziar maa ngi leen di ziar yéen ñëpp nag maa ngi ziar ñëpp yéen ñi fi dugg yëpp maa ngi leen di ziar voilà donc euh, li am importance pour ñun rek mooy ñu continuer leen ko wax nos patriotes sont arrêtés ils sont en prison ils n'ont rien fait de mal ils n'ont rien dit de mal et Macky Sall les a mis en prison euh, parce que tout simplement, ils étaient en train de distribuer des flyers et éveiller les consciences des Sénégalais. Euh, parce que on trouve que, Inch'Allah Rabbi, avec l'éveil des consciences qui continue au Sénégal, le Sénégal va changer et ça va changer vite. Sénégal dina changer te dina changer vite ça va changer vite Sénégal dina changer te dina gaw nak. changement bi dina gaw. du bi ko Sénégal dina changer Sénégal dina changer Inch'Allah rabbi ça va changer vite dina changer Euh, comme ni ma leen euh, le rendez-vous c'était demain je ne voulais même pas je ne voulais même pas sortir aujourd'hui <clears throat> mais on a trouvé que parfois obligation le ci parce que mon Tok, sama kër nekk ci jàmm dina di lek di naan di nelaw et mes frères sont toujours en prison euh, vraiment mënuma ko peut-être nit ñi euh man li ma intéressé ci Sénégal bu ñuy maté wala ñuy note doomu Sénégal loolu rek moma ma intéressé ci Sénégal li ma intéressé tay c'est ces fils dignes du Sénégal qui sont en prison et qui n'ont rien fait de mal et qui n'ont rien fait de mauvais ñu japp leen tej leen ci kasso bi sans pour autant ñu am benn raison pour tej leen fa commencé par Di Marius et les deux autres frères qui ont marché en paix sur les grilles du palais ñu jàpp leen tëj leen euh, sax camp pénal euh, Tay, ñu am yenen frères yo xam ñom demb dañu de di partager ay flyers di waxtaan ak doomu sénégalais di conscientiser doomu sénégalais yi ñooñu tamit ñu jàpp leen prison sans pour autant ñu am ben raison pour jàpp euh mu melni rek Sénégal. Euh, démocratie baa ngi reculer mi ngi reculer ak allure bo xamné c'est même pas compréhensible démocratie Sénégal allure bi muy reculer kenn xamu ko xamul allure bi nga xamné ne lay reculer mais comme niñ koy waxee euh, ñun amuñu lu Sénégal Té ñun duñu abandonner Sénégal nous ne pouvons pas abandonner le Sénégal duñu abandonner Sénégal duñu le Sénégal suñu loxo du jóg ci Sénégal suñu ay poche du jóg ci Sénégal suñu xel du jóg ci Sénégal suñu làmmiñ du jóg ci Sénégal euh, dinañu continuer xeexal Sénégal dinañu continuer xeexal para euh, euh, patriotes yooyu ba yàlla génnee leen ci jafe-jafe bi nga xam ne moom la ne nous de nous ne ne demandons pas à Macky Sall ñun duñu amuñu Macky Sall pour demander ko faveur nous exigeons dañuy exiger mu bàyyi doomu sénégalais yi ñu ñibbi seen kër y compris Guy Marius Sagna ak yeneen frère ñaari frère yi nga xam ne moom la jàpp billaahi Macky Sall il va payer loolu man maa leen ko wax bu ma leen ko waxee jël leen ko ngeen takk ko ñun yàlla la ñu gëm te xam nañ ne ku ànd ak yàlla yow yaa nekk ci dëgg xam nañu ne yàlla bis dina jot dina ñu àtte ak Macky Sall te yàlla bis dina jot c'est avec makki Sall que ça va changer c'est avec Macky Sall que le Sénégal va changer incha allahu rabbi Sénégal gis nga changement bu radical bi nga xam mom la Sénégal di changer pour jub ba faw ci Macky Sall lay commencer il sera le premier Sénégalais qui sera pendu en public il sera le premier euh, comme tay euh, euh, bi ngeen ne nañu indiwaat kiiwu pénal xam nga tay bo xolé ay dialogue politique wala ngeen tuddé ko dialogue national bok euh, caaxaan yi nga xam ne moom la Macky Sall di bëgg indi Sénégal moom il n'a pas compris il n'a pas compris notre détermination il n'a pas compris la détermination des Sénégalais Macky Sall il n'a pas compris que daraam lu muy waxati ñoratul Sénégalais Macky Sall bu ŋaaŋee dafa mel ni euh, nga ubbi cabinet tu as ouvert une toilette et les Sénégalais ne peuvent ne peut pas tolérer l'odeur qui sort de ta bouche parce que doomu sénégalais ngay nit nit ngay mbaam judduwuloo ci ci ci ci park ci ay kër nga juddu ngay génn di di naxasal li nga xam ne moom la suñu maam yi deewee fii suñu papp yi dee ci pour lan pour benn démocratie pour benn Sénégal bu changé nga ngay mate ngay xeex ngay ngay ngay tuutal doomu sénégalais yi nga les sénégalais ils vont rester à côté pour t'attendre euh, on est en 2020 on est au 21e siècle au Sénégal euh, les sénégalais sont déterminés cette fois-ci on a une détermination dañoo déterminé déterminer, de nous ginnaaw c'est une garantie que dina yag, dina yeh peut-être mais dinañu nous loxo ci yow te bis bu ñu tegee loxo ci yow di nga comprendre ne lépp dëgg l'humiliation que tu vas faire face waxuma leen lu bari loo xam ko humiliation bi nga xam ne moom mooy a ak Macky Sall ah wallaahi kuko wax xam war ngaa sa parce que Macky Sall sera l'exemple de notre génération suñu génération euh, Macky Sall mooy doon suñu exemple wow Euh, je demande nag gars yi bu ñu dellu ginnaaw on n'a sa se préparer ñu fagaru nañu préparer wu euh, parce que li nga xam ne moom la Macky Sall bëgg indi Sénégal ñun duñ ko nangu euh, li nga xam ne moom la Macky Sall bëgg a doxalee Sénégal ñun duñ ko nangu ni nga xam ne fa nga fa nga xam ne foofu la Macky Sall bëgg a jëmale Sénégal duñ ko nangu donc tey dama génnoon vraiment pour gën a ñaawluwaat encore li nga xam ne moom mooy suñu euh, nit ñi nga xam ne ñoom la Macky Sall jàpp vraiment dugal leen ci biir kaso bi te defu ko tegu ko ci dëgg te tegu ko ci yoon te tegu ko ci respect parce que tey Sénégal waratul doon réew moo xam ne nit dina dox ci mbedd sax ñu lay fekk foofu ñu lay jàpp parce que li dal frères yi démb c'est exactement égal à ça ay doomu aadama yu génn di dox ci mbedd di waxtaan ak ay sénégalais Mingi melni mel ni nit génn di wax ak xaritam ñu jàpp ko dugal leen ci biir kaso bi pour rien du tout nag amul benn raison boo xam ne moom moo tax ñu dugal leen ci biir kaso bi c'est tout simplement parce que ay doomu sénégalais lañu ñu ngi conscientiser sénégalais yi ñu ngi yee sénégalais yi comprendre euh, te incha allahu rabbi ñun dinañu continuer ci tali boobu dinañu continuer ci yoon boobu nous allons continuer ce nous Nous allons continuer le Sénégal nous... ndam continuer on va continuer ce combat ça sera dur quand même parce que comme ni ma leen koy il toujours a sax bëggul mais les sénégalais auront la victoire enfin Nous... Inch'Allah... rabbi ci mujjantal dinañu vraiment maa ngi leen di jaajëfal di leen euh, remercier di leen aussi ñaanal jàmm di leen baal àq di leen balu àq ma bëgg ngeen jël information yi ngeen partagé ko pour mag Macky Sall libéré ñooñu nga xam ne ñoo nekk ci biir kaso bi ñi deful dara waxuñu dara defuñu lu dul dox dox euh, waxtaan ak sénégalais yi vraiment conscientiser leen moom ñaari manière lay doxee soit da nangu mu jënd sa ngor boo bañee mu jënd sa ngor mu mat la moo tax la plupart des temps naafeq yi ngeen di gis ci réseaux sociaux yu bari bari nañ fi xam leen ne ñu bari jaay nañ seen ngor Macky Sall ci journalistes yeeg ci ci ci patriotes yeeg bari nañ fi ils sont nombreux ici xam naa leen xam naa ci yu bari te ñu ngi travailler ci liste bi te la liste sortira dinañu génnee liste bi toujours pour ngeen xam exactement ay doomu aadama yoo xam ne jaratul ngeen di ngeen di seq ak ñoom parce qu'ils ne sont pas là pour la Sénégal voilà maa ngi leen di jéggalu nag maa ngi leen di balu ak bu baax a baax a baax parce que vraiment euh, tey du woon euh, euh, jour bi nga xam ne moom la ñu war a génn mais dafa doon rek vraiment urgence vraiment doomu sénégalais yi nekk ci kaso te mënuñoo nekk ci suñu biir kër yi nekk ci jàmm voilà euh, <laughs> Maria Maria maa ngi lay ziar tey moom euh, fan tey moom Macky Sall moo ñu xañ dibi bi parce que comme suñu frère yaa ngi ci biir euh, te ñu ngi ci ay naqar donc vraiment ce n'est pas le jour pour une célébration pour nous mais plutôt un jour de peine parce que ku bëgg sa réew boo toogee di xool ñuy reculer sa démocratie réew day doon loo xam ne vraiment day jëlee lu bari ci yow Eh, loolu la ñu gisee Sénégal tey dañu gis ne Macky Sall il fait reculer notre démocratie parce que démocratie bi xam naa sama ay doom ak seeni ay doom ak ñeneen ci la ñu yaakaaroon yaakaar ne vraiment ils pourront venir gérer le Sénégal un jour voilà dinañu doon mën a ñëw jubbanti Sénégal teg ko ci yoon mais tey gis nañu ne que vraiment euh, notre démocratie a reculé euh, voilà donc merci encore merci merci euh, vraiment, il faut savoir que ce combat ne sera pas facile. Dina metti, dina jafé, mais nous vaincrons. Inch'Allah, Rabbi, nous vaincrons, dina nous vaincre. Euh, Bala may dem rek bu fekkee mën naa koo gis ma tegal len euh, vraiment ben waxtan bu am importance bu suñu ben pap waxone Euh, ma bëgg rek doomu sénégalais yi ngeen yóbbaale lii voilà bii mooy doon euh, vraiment dernier benn video laa leen di tegal fii rek bu am solo ma bëgg ngeen déglu ko bu baax ngeen am loo leen ci njariñu maa ngi leen koy tegal jéggal leen ma une seconde ma tegal leen waaye que duma tey tey moo tax bëggu leen ma gis ma soli sax ci li nga xam ne moom mooy waxtaan wi parce que li important rek lañu bëgg a teg vraiment ngeen euh, ngeen njariñu ci baal leen ma ak jéggal leen ma ma tegal leen audio bi baal leen ma de xam naa teg mbir mi baal leen ma de ma tegal leen lii ala personne ne peut vaincre. personne ne peut. les États-Unis ont fait la guerre contre le Vietnam pendant plus le 20 ans ils n'ont pas gagné. personne ne peut vaincre. les États-Unis ont fait la guerre contre Cuba pendant 50 ans ils n'ont pas vaincu. personne ne peut vaincre nous gagnerons le combat. ce combat nous le gagnerons. ce combat nous. Personne ne peut vaincre un peuple. Personne ne peut vaincre un peuple. Personne ne peut. Les États-Unis ont fait la guerre contre le Vietnam pendant plus de 20 ans. Ils n'ont pas gagné. Personne ne peut vaincre. Les États-Unis ont fait la guerre contre Cuba. Pendant 50 ans, ils n'ont pas vaincu. Personne ne peut vaincre un peuple. Nous gagnerons le combat. Ce combat, nous le gagnerons. Ce combat, nous. Alessandra. Oui. Ce combat. Moi, citoyen, citoyen sénégalais, ancien politicien dans, de la CDP j'ai arrêté la politique depuis 2009. Aujourd'hui, j'ai 71 ans, 7 mois et 20 jours. Chaque jour, me rapporte la tombe. Je suis sorti parce que mon pays est gouverné par des gens qui ont fini de démontrer leur incompétence, leur impertinence et leur arrogance président de la République se permet de signer un décret sur la base d'un rapport de présentation qui contient de fausses informations. Quand un président de la République se permet de, libérer un assassin, un criminel, une ordure, appelée Mamadou Diallo, quand un président de la République se permet de signer un décret qui nomme le directeur général d'une structure franc, d'une structure financière privée comme l'IPRES, quand l'Assemblée nationale non, pour question orale écrite, que euh, les, questions, seules, questions orales écrites à l'Assemblée nationale, c'est quoi C'est quoi Ce sont des immeubles construits avec l'argent de la drogue. Les seules questions à l'Assemblée nationale, c'est quoi C'est le, faux monnayage. Les seules questions écrites orales à l'Assemblée nationale, c'est quoi C'est quoi à l'Assemblée nationale Ce sont des potards d'engrais et de semences délivrés à l'époux d'une mission, délivrée à la concubine délivrée au deuxième bureau d'un haut fonctionnaire des, engrais et des semences délivrer à qui Délivré à, des gens, à des footballeurs, délivrer à des justeurs qui passent leur temps dans un café célèbre de la place. Non, tu ne peux pas être d'accord avec eux. Tu ne peux pas me taire, malgré mes 11 ans. On est en train de foutre tout le travail que nous avions fait. Nous avons travaillé avec les batteries. Nous sommes venus dans la lutte en 1968 on était les jeunes élèves au lycée Marie Thiès. Nous avons travaillé, nous avons ah, bâti ce pays. Nous n'accepterons pas qu'on revanche. Jamais de la vie. Nous langue que nous là. Nous refuserons. Ce Marie est là. Il est est là, il connaît. Nous, avons été les nous avons été nous avons été pétris par les par les par les Mamoudouï, par les Ablaï Bachili, par le Fomba Boutissé. Non, non, ni avons nous. On s'est battu pour ce pays. Aujourd'hui, des là des sous-là des soulards qui veulent nous foutre en l'air. Et aujourd'hui, des gens qui ne sont rien d'autre que des bails de Guaïtéré, qui se lèvent, qui disent être des imams et qui disent qu'ils vont nous sensibiliser, qu'ils vont nous dire pourquoi le courant doit augmenter. J'ai honte pour ces gens-là, des, des, des, gens qui n'ont rien. Ils sont pires que les de Guaïtéré. Ils sont pires. Allah Akbar waaw gars yi euh, vraiment euh, ñun dinañu continuer combat bi dañuy ñaan rek doomu sénégalais yéen ñëpp foo leen mën a nekk ci àdduna bi ngeen dénoncer. vraiment euh, jàpp arbitraire bi nga xam ne moom la ñu jàpp doomu jàmbur yi génnoon encore di partager flyer ak ñoomin seen vraiment merci à tout le monde et bon dimanche à tout le monde incha allahu rabbi on se donne rendez-vous encore demain demain dans l'après-midi 14 heures heure de New York di ngeen ñu dégg euh, defe 17 euh, h de Dakar 20 heures de France voilà 14 heures entre 14 h et 15 h incha di voilà merci encore merci ñu ngi di merci